seen mbokk seen xarit Cheikh Sidi Mokhtar ñëwoon doon wax ak yéen ci guddi cheikh bi ak li ci jëm ci wàll li nga xamante ne moom mooy yi nga xamante ne moom def ci tariqatul qadiriya mu doon yóbbal boo xamante ne dañ ciy fàttali mbokk yépp guddi cheikh bu tombeek ci nisfu chaabaan muy chaabaan ci digg bi lay tombel ñu war cee ñaanal cheikh bu Muhammad waaye yemuñu ci loolu rek nisfu chaabaan bi mu doon mu doon bis bi nga xamante ne euh, ñu wara cee def lu bari mu nekk bis boo xamante ne bis bu ama am am solo la ñu war cee def ay ñaan ñu war cee jàng alquranil karim préparé waale ci suñuy koor parce que ci weer boobu dañ ciy woor weer bi ko jiitu tamit ñu woor ko luñ ci man préparé waale koor gi kon ñi ciy fàttali mbokk yépp waaye comme waxtu bi dafa xaw a xat ñu fàttali leen rek ci jëf yu baax yi ñu ciy defaale wala ñaan yu baax yi ñu ciy def muy nafqu tayib di mbindum cheikh sidil muxtaar al kunti boo xamante ne salaatu ala nabi ci salaatu ala nabi lañ ko bind sallallahu alayhi wa sallama ñu war cee fàttali mbokk yi xam ne tariqa bi ci loolu la tënku muy li nga xamante ne moom mooy terbi yar ñu ci li nga xamante ne moom mooy jaamu yàlla jikko ju baax wala jikko ju rafet ñi ciy fàttali mbokk yi am ay adkaar yoo xamante ne yu ama am solo yoo xamante ne dañ koo fekk ci tariqa bi muy ci yoonu qadriya ñu ciy fàttali rek ginnaaw naf qati bi buñ ko defee ba pare euh, ñu war cee def adkaarul qadriya yi nga xamante ne moom lañu ñu war a def ñu fekk suñu maam Cheikh Sidil Mokhtar El Kunti yi fekk moom mu fekk ko ci ay maamam euh, ku mel ni Cheikh Abdul Qadir Jeylaan mu ko doon def tariqa bi dañul di ko def ba ci jamono jii ñu toll ni ñu nit ñuy topp ci yoon boobu di ko def ba néga ni ñuy fàttali na rek azkaar yi ñu ciy def bokk na ci téere bi nga xamante ne mooy kunuudu nuraaniya adiyatu wa awraadu saadat alqaadiriya ay adkaar yu ci nekk yoo xamante ne mbokk yi xëy na fàttali rek lay doon waaye yàgg nañ di ko waaye dafa baax rek ñuy jukki ci yenn téere yi nga xamante ne yooyu téere fàttali nañu li nga xamante ne mooy adkaar yi ñuy def ñi ci nekk xam li ñuy def lan la waaye wurdal qaadiri xam nañ na xam nañ ne maanaam mi ngi tënku ci juróom benn téeméer yooyu noonu muy ci xasbunallah wa ni'mal wakil ak istigfaar salaatu ala nabi yi ciy jëm waaye nag dafa am ay xadra yi nga xamante ne daf ci am ñu bëri bàyyi ñu loolu xel bu ñu tollee ci bis yu mel ni du gudd cheikh bu ak lu mel ni gàmmu njaasaan dañuy faral di def yi euh, comme dañu toll ci jamono joo xamante ne li ñu mën a tënkee nit ñi du leneen lu dul ci wàll li nga xam mooy jaamu yàlla adkaar yi ñuy def di ci fàttali mbokk yi euh, bu bis baa nag ñu ciy woo mbokk yépp euh, muy le vingt bii di ñëw comme que weer bi dafa dafa kaamil kon li ñu mën a wax le vingt lay tombel incha allahu rabbi bu ñu fi yàlla bu ñu ci yàlla yóbbee ñu war a def ay kaamil comme nañ ko doon defee rek bu ñu defee loolu ci bëccëg bi ba pare am yeneen programme yoo xamante ne dañ koy taxawal bu ñu paree ci loolu bu ñu demee ba guddi ñu war a def nafq tayib fi salaati ala nabi al habib bu Cheikh Sidil Mokhtar al Kunti bu ñu paree ci loolu soog a ñëw ci adkaar yi ñuy wax nii muy kunuudu nuur adiyatu wa awraad saadat al qaadiriya ñu war koo def ci guddi gi fàttali ci mbokk yi mën a tënku ci loolu mën a tàggat suñu bopp ci wàll jaamu yàlla ci wàll noot suñu bopp noot suñu bakkan mën ko jëmale foo xamante ne fàttali suñu borom bi lay doon doon loo xamante ne saa ne saa su ne ci loolu lañuy ñuy tënku kon ma leen woo ci loolu ci ndigalu cheikh al bekkaay ibnul bekkaay ibnu cheikh abi muhammad ñu leen di woo ci loolu bu bis ba ñuy ñaan ku nekk rek na nga fexe ba bul ko wuute ñu mën ko teewee taxawee ko nu mu waree incha allahu rabbi ñu ci woo ñëpp di wax ne maanaam nit ki buñ la fekkee ci sa liggéeyu bopp duñ la wax lu dul jaajëf ñaanal la kon wasalaamu aleykum wa rahmatullah